te ni mooy euh, gën a fës ci actualité bi ñu nar ko waxtaane léegi ci euh, euh, plateau bi je pense que soit le témoin mooy dissolution li nga xamante ni moom mooy HCCT ak bu conseil économique social ak environnemental xam ngeen ne waa présidence wax nañ ko dañoo yónnee ab bataaxal foofee ca kon euh, assemblée nationale pour dissoudre euh, li nga xamante ni moom mooy ñaari euh, kon euh, ñaari du ma ne kuréel sax waaye conseil économique social environnemental ak HCCT nan lañ ko gisee d'abord Malick Thiandoum est-ce que dissolution boobu noonu dafa ñëw ci waxtu. waaw déjà dañuy euh, préciser rek loolu ci prérogative bu président de la république la bokk ndax constitution bi ci article 63 moom moo ko may. pour mu mën a saisir ki nga xam ne mooy njiital euh, président bu assemblée nationale ngir sàkku ci moom lépp lu nga xamante ni bëgg na ko jëm ci maanaam dissolution ñaari institution yooyu dañuy fàttali rek ni loolu dafa bokkoon ci li nga xam ne mooy campagne programme campagne bi nga xam ne coalition Diomaye président mhm. euh, amaloon na ko ndax ñoom xamle woon nañu ni bis bu ñu jëlee réew mi mhm. euh, dinañu wàññi le train de vie de l'État te loolu dafay euh, bokk ci li koy mandargaal wàññi yenn Euh, institution budgétivore yi euh, conseil supérieur euh, conseil économique social et environnemental ak HCCT ci la ñu bokk maintenant problème bi moo di ni saisir na assemblée nationale ci moment bu nga xamante ni nii Euh, configuration assemblée bi dafa euh, mel ni que euh, tey position bi ñoom ñoo fa ëpp ndax euh, tey projet boobu mën na jàll comme lettre à la poste loolu point d'interrogation lay doon ndax bu ñu xoolee waa Benno Bokk Yaakaar du député yi am nañu ndaje mu ñu war a amal niki tey à partir de dix 17 heures pour xool ci situation boobu na ban appréciation lañ ci am leneen li nga xamante nii moom moo ci nekk aussi moo di nii ci kujje gi am na ci ñu nga xam ne dañu jàpp ni conseil économique social et environnemental ak dissoudre également HCCT euh, euh, dafa li ko war a jiitu d'abord mooy la déclaration de politique générale mm-hmm. du euh, premier ministre nga xam ne tey les axes programmatiques yi nga xam ne ci la ñu nar sukkandiku ngir doxal réew mi ba léegi kenn xamagu ko am na ñu jàpp ni loolu moom moo war a jiitu mais en tout état de cause li nga xam ne tey moom moo si moom lañ ciy xaar moo di ni soit mbir mi jàll mbaa mu bañ a yàlla bu jàllul yan conséquence moom moo ci nar a am parce que loolu aussi dafay xëy na gën a baral li président di sàkku muy la dissolution de l'Assemblée nationale parce que bu boobaa yi tamit dafay am lu ñu tuddee euh, benn euh, daal frottement entre deux institutions mais euh, li wérte moo di ni ay institutions la ñu yi nga xamante ni xalaatoon nañu ni dinañ ko tas ndax moment bi moom moo gën a propice wala déet loolu mooy laaj bi ndax waa benn Bokk Yaakaar dañuy bàyyi yëf yi jàll comme lettre à la poste loolu bu ñu dajee ngoom ngoon ñoom dinañu harmoniser mmh. seen ay position émission on verra maintenant de quoi demain sera fait en tout cas jeudi lépp dina leer. Euh, justement euh, Chérif euh, puisque amuñu majorité est-ce que euh, mbir mi dina yomb ci ñu dissoudre HCCT ak conseil économique social environnemental. loolu ñu tuddee la surprise du chef. comme ni ko mhm. Malick waxee ci politique parce que li ñu doon xaar c'est pas dissolution institution yi même si. de tout temps Pastef de manière générale bi nekk ci kuje gi yëpp am nañ ay institutions yu ñu jàppee nan institution budgétivore la seen terme la ndax li muy jël ci alalu Sénégal bari na pour case clientèle politique muy conseil économique social environnemental ak HCCT nga xamante ni kon mooy au conseil des collectivités territoriales Macky Sall bu njëkk sax daana ko jox ay alliés ah bi ci mujj gisoon nañ Idrissa Seck joxoon na conseil économique social parti socialiste moo jiite conseil au conseil des collectivités territoriales yi nga xamante ni ci réforme constitutionnelle yu 2016 yi lañ ko indi woon ngir loo xamante ni kon mën na di xelal nguur gi ci politique de centralisation yi comme ni ko article bu constitution daal di waxee. maintenant comme ni ñu ko doon waxee parce que li ñu doon xaar tey moo doon premier ministre dem assemblée nationale def fa sa déclaration de politique générale parce que dafa am lu amoon assemblée nationale ñu ne euh, boobu ba léegi li ci jaaxaloon nit ñi mooy leeraloon xam kan moo falsifié boobu règlement intérieur tax na député yi ci boppam comme ni ko Malick waxee parce que article 66 boobu mu wax sax ci pardon article 63 Euh, président mën a convoqué lu beneen session extraordinaire moo may tamit ay député ñoom it ñu mën a convoqué ay euh, session extraordinaire bu fekkente ni session bi dafa tëj ñoom ubbi nañ ko la taxoon nag mooy ñu daal di modifier li nga xamante ni mooy règlement intérieur boobu loolu c'est déjà fait donc obstacle amutoon pour que le premier ministre se présente devant les députés pour def sa déclaration de politique général mais le président aussi day politique comme ni ñu koy waxee te contexte bi dafa favorable loo tax justement c'est très facile pour lui pour mu dissoudre ko maanaam ñaar option moo mën a am benn boo ko on se demande même si Benno existe toujours parce que am na loolu dinañ ci ñëwaat et loolu favorable na pour président bi parce que dégg ay libéraux yu daje seen biir waa parti socialiste mi ña hmm. ñu mere ci Macky Sall surtout ñi nga xamante ñu àndoon ak Amadou ba jàpp ni daf leen daf leen war et ñooñu góob ni sax dinañ ànd ci groupe parlementaire bi comme na dëgëree woon donc déjà contexte bi c'est favorable au président de la République et à Pastef ans président bi daf koy tas le 13 bi incha allah le 13 parce que le 12 la leen bu ko neexoon bu 12 bu bu minuit jotee le 13 mu tas ko donc suñu lànkee ne duñ fekk si président bi ci bëgg-bëggam ñoom it da da da tas donc maintenant nag li ci doy waar mooy euh, ñoom mënoon ko jàppee parce que boo xoolee ki jiite conseil économique social environnemental Abdoulaye Daouda Diallo. Mm. il n'est pas n'importe qui ci li nga xamante mooy APR parce que moom ak Mamadou Maam Amadou Maam Diop mi nga xamante moo diriger assemblée nationale donc woolee leen kaay leen rey seeni frère en politique c'est pas mën a jàpp gëmu ni ñoom di leen xëy na moo tax gars nan conseil économique social environnemental tas ñi nga xamante ni mooy conseil économique au conseil des collectivités territoriales loolu dina indi benn problème boo xamante ni beneen crise da indi parce que ñi nekk ci ñaari institutions yi dinañ mel député parce que mënu leen a bokk benn parti ba pare di di wuyu si jomaay ci li nga xamante ni wala na dem sax ba tas li nga xamante ne précipité tas affaire bi nga xamante ni gis nga jafe-jafe yi nga xamante ni fa la nekk parce que comme ni ñu ko yàgg nañoo critiquer ku yaa ngi xool donc mm. contexte bi c'est contexte boo xamante ni député yi buñ bañee président bi dina ko tas parce que encore une fois c'est des institutions comme ni article 6 bu constitution bu waxee institution de la république xam nañ leen boo loi constitutionnelle nag ni ñu ko mën a waxee ñaari option lañ mën am pour tas ko mooy député yi daje. mooy majorité trois cinquième yi ñu mën koo tas wala tamit li nga xamante ni quand même moom mooy référendum maanaam ñu woo sénégalais yi ndax ànd ngeen ñu tas ko et cetera xëy na option bi moo gën a gaaw parce que du jural li nga xamante mooy xaalis mais goo mën ni député yi nga xam ne ñoo nekk bennoo dinañ ko nangu di tas ay constitution ay institution ñoom ak ñoom ñoo bokk mais buñ ko tas tam fii ak deux semaines président dina am beneen option boo xamante ni day tas assemblée nationale bi et donc moo la wax ma ne la con république comme ni nga ko waxee ce qui veut dire que xëy na on va vers des élections anticipées maintenant na xëy na ñi xamante seen xam-xam màcc na ci wàllu constitution ñooñu ci mën a génn mm. ndax bu assemblée nationale bañee tas li président bi moom dina ko mën a tas même si mën na tas assemblée parce que assemblée boo am na deux ans mais député yi buñ ko mënta voté am amul référendum boo xam ne woon ko fi comment il va faire avec ces deux institutions yi nga xamante ne quand même am nañ fi njëriñ Sénégal dañuy di wax rek parce que am na histoire aussi surtout conseil économique social environnement Abdou Diouf moo ko fi indi woon mm. Abdoulaye Wade daana ko ŋaañ ba mu ñëwee dafa indi mm. yam foofu social jox ko ki nga xamante mooy dem si yàlla ancien maire bi nga xamante ne nekkoon Saint-Louis def na Ousmane Masseck Ndiaye bi mu génne àdduna Macky Sall tamit doon ko fi critiqué gars yi di ko ŋaañi bi ñëwee tamit moom moo ci yokk environnemental indi ko donc nga xamante euh, dafi nekk gouvernement bu ko soxlaa président soxla ko wala assemblée mu koy xelal ci yenn yi comme ni ko conseil économique social environnemental amee de tous les dangers, comme on dit. Alors, cher Euh, mu mel ni bokk na ci lenn ci loo xamante ni euh, ñeel na sañ-sañu euh, njiit bu réew bu Sénégal moom président Bassirou Diomaye fay ndax dañ gis ne ñaari banqaas la yoo xamante ni amaana peut-être li mu nekk ay lekkukaay koppar moom moo ëpp daanaka li nga xam ne moom moo di njëriñ li waaye itam ngir coppi lenn ci ay lu soxal wàllu constitution bi fii ci réew bu Sénégal xam nga ni am na limu député boo xamante nii donc da koy laaj beneen ponk boo xamante ni mën nañ ci àddu mu di bu fekkee ñoom lànk nañ ne duñu voté li nga xam ne moom moo di loi bi opposition bi dina doon dina jox ay yenn ci ay argument euh, supplémentaire jëm ci li nga xam ne nag moom moo di euh, pouvoir bi euh, ci wàllu législative ak itam may ko yenn ci ay motif yoo xamante ni daañu tas li nga xam ne moom moo di pencum ndawi réew mi la tey leneen ci loo xamante ni gis nañu ko ne groupe Benno Bokk Yaakaar daan lañ leen convoqué en urgence tey jii bu 17 heures jotee weteen si xool ana lan mbir mi di jur jeena ba may mm-hmm. euh, jërëjëf sa xalaat <laughs> li ma ci xalaat rek euh, mooy peut-être lii nii euh, suite logique la peut-être parce que ci jamonoy campagne bi doon nañ ko dégg ñaari kuréel yi doon nañ ko faral di wax lu bari naan li muy dugal dugal liñ ciy dugal ci koppa dafa bari nit li mu nit ñi ci nekk itam dafa bari war nañ ko xoolaat ñu tas ko wala ñu boole ko mu nekk benn bu ñu ñëwee tey ji di ci wax waxu dissolution peut-être nekkul lu bett nit ñi xanaa kay ci contexte biñ ko ko waxee euh, xel tamit dem ci euh, projet de loi boobu bu demee ndax euh, dina yomb mu jàll bu ñu seetloo ni Benno Bokk Yaakaar ñoom ñooy majorité parlementaire comme ni niñ koy waxee fi mu toll nii sax gis nga ñoom nee ñu dañuy fippu ñu ngi leen xaar tey ji ci ngoon sax ñu génn wax ana lan fan la ñuy jëm parce que ñoom duñ ko duppee rek mooy plan de riposte mhm. maanaam dañuy xool nan lañ koy doxalee mhm. nan lañ ciy demee pour ma pour ma tënk daal jeene ba mooy euh, du yomb daal comme ni nga ko xalaatee. Mhm. ci sama xalaat. en tout cas actualité bi dinañ ko suivre ñun waa télévision euh, Futur Média di leen jaajëfal euh, donc ci seen xalaat ñu ñëw léegi ci beneen rubrique un jour au Sénégal un jour dans le monde.